ah di nuyu itam permis carte grise di leen ñaanal jàmm bu baax a baax ah, di ñaanal yàlla itam way dawlu yi nga xam ne def nañ accident bu méttee méttee métti ci yoonu poroxaan gi di leen ñaanal yàlla yàlla sunu borom yërëm leen ca jéggal leen seen i bakkaar ndax kat lañ doon def lu baax la kon yàlla leen yàlla xareel àjjana yi gën a kawe. tey nag télé tey nag télé leeral dafa déplacé wu jóge West Foire ñëw ba fii fi Sac Mbaaw fekk fi si daal di fi fekk si ku ñuy wax baabu Ndiaye baabu Ndiaye feggoo ak madam Ndiaye ak Babacar nduur ak euh, su sama naataango bi Elas Thiam ak Maas euh, kon tey dañ leen di defal seen émission spéciale ak waa INAPAS waaye dañuy daal di jox kàddu gi baabu Ndiaye di ko wax asalaamaaleykum di la dalal jàmm fii ci sa garage asalaamaaleykum ci sa mbaaw aleykum salaam wa rahmatullah Badiane ñu ngi lay nuyu di la gërëm di sant avant tout di sant yàlla julli si yonent bi euh, di wax ne mbégte bu rëy lañu ñu àndal tey ji euh, di wax ne maa ngi toog ak samay naataango ñoo xam ne ay mbokk mécanicien lañ waa ñu fas yéene waxtaan rek. jërëjëf kon damay daal di jox kàddu gi rek euh, madame Ndiaye madame Ndiaye nag su ngeen ko déggee wala ngeen gis ko tey ci tele bi wax dëgg yàlla. Euh, da li am njàngale la ndax euh, wax dëgg yàlla mu fegook boroom këram nekk ci waar wi loolu feerte la kon damay daal di jox kàddu gi madame njaay mu daal di nuyoo fii ci Leral TV. asalaamaaleykum waa maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di rafetlu teewaay bi tey waa Leral TV kontaan nañ lool lool ci ni ngeen ñu fekk see mhm. maa ngi leen di wax dal leen ak jàmm. jërëjëf kon dañuy jox kàddu gi rek euh, sama tooma Babacar nduur magum mécanicien laa koy tuddee Babacar nduur asalaamaaleykum. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp maa ngi nuyu waa télé bi ak euh, ma euh, sama turandoo bi Babacar Badiane ak Babou Ndiaye maa ngi sant ñëpp daal di gërëm ñëpp. jërëjëf kon dañuy commencé nag waxtaan bi. waxtaan bi nag tey xam naa ne dina tàng jër ndax xam naa ne baabu mi euh, naan na yu seddam ba toog bëgg a jàkkaarloog ak man waaw baabu euh, dama laa bëgg a laaj euh, INAPAS INAPAS tur wi dafa màgg lool bëggoon nañu xam INAPAS lan mooy INAPAS ak lan moo ko tax a jóg baabu Ndiaye. waaw xam naa ne loolu bu buñ ci naree wax dina yàgg mais dama koy résumer rek. INAPAS mu ngi nekk Union nationale des professionnels de l'automobile du Sénégal. Mhm. Euh, ñu ngi ko créé nag depuis 2020 2020 daal lañ ko créé woon ba léegi 2022 euh, bi si la am récépissé di doxal nag ay activités moom nag dafa rassembler bépp professionnel boo xam ne yaa ngi yëngatu si automobile mu commencé si mécanicien bi électricien bi vulcanisateur bi laveur laveur bi ñëpp euh, képp koo xam ne yaa ngi yëngu si automobile daal UNAPAS daf lay daf lay kii quoi waaw jërëjëf kon damay daal di jox kàddu gi madame Ndiaye madame Ndiaye yow ñu gis la nga nekk jigéen euh, Babou njaay di sa boroom kër nga dugg ci liggéey bi liggéey bi nan nga ci duggee da nga koo jàng wala euh, noo def daal ba xam liggéey bi tey di ci jàppale sa boroom kër. merci beaucoup Babacar donc euh, liggéey bi ni ma ci duggee donc ba may ba may xamante ak moom ci mécanique bi laa xamanteek ak moom parce que boobu mi ngi def mécanique yooyu. donc xam nga rek am jëkkëru mécanicien di nga xam yenn coin yeeg yenn kii yeeg yooyu noonu moo tax loolu donc ma ci dugal ma ñëw de temps en temps damay ñëw garage léeg-léeg buy def dara ne ma madame Ndiaye jottali ma clé yi indil ma léeg yooyu noonu voilà mhm. passion bi foofu la ñëwee mhm. voilà ma ne pourquoi pas ma nekk ci bu ko defee damay gérer boutique bi en même temps léeg bu nit di ñëw ne ma kaay euh, dafa bëgg a diagnostiquer otom mu ne ma ñëwal indil machine bi kaay nga def lii ak lii jàngu ko nag de lu ma ci xam lu ndaw moom moo ma ko wan moo ma jàngal kon joxal ma kon kon joxal ma kàddu gi sama tooma Babacar Ndour Babacar Ndour euh, tey nag dañuy dañoo xuus ci mécanicien seet si artisan yi ndax artisan yi dañ leen a war a fésal ci seen liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def ndax ñoom ay jàmbaar lañu rawatina ba ñu commencé ci ancien oto bi ba ñëw cay ci niveau modèle yenn oto yi kenn du koy diagnostiqué yenn yi dañ koy diagnostiqué waaw loolu nag laa bëgg a laaj sama tooma muy Babacar Ndour Babacar Ndour léegi eh, eh, mécanique gu démb ak mécanique gu tey lan mooy différent bi. bon mécanique gu démb ak mécanique gu tey liy différence bi mooy ñun bu njëkk diagnostic bi ñuy def mooy diagnostic gu bopp. maanaam da ngay xalaat da ngay taal oto bi nga xam ne boo gisee la muy génne ci fumier nga xam ne oto bi li muy làkk baaxul wala li muy làkk baax na wala nga xam ne oto bi am na bruit cylindre nangam ñu mhm. dañ daan dem sax ba ne la cylindre boo fa demee fekk fa bruit bi mhm. du ñu dugal machine mhm. ñu def dara du ñu dugal machine loolu ak parce que man damay gis mécanique ku tey mécanique wu tey dañ ne moo gën a métti mais dama jàpp ne moo gën a yomb parce que oto bi day ñëw nga dugal sa machine mu wax sa paan ñun nag bopp lañ daan liggéey mhm. moo tax auto yi bi ñu ñëwee ñu gën ci man bon méttiwul ci ñun daal mhm. ci li ma gis mhm. man méttiwul ci ñun parce que da ngay xam réalité bi doon doxal ancien bi moom la tubaab bi indi rek mais da ko sensé dafa sance réalité bi rek kii de daan am pompe insection am balancement kii ñëw am indi cassette cassette bi mooy def li nga soxla yëpp Mhm. waaw waaw léegi euh, oto yooyu oto yooyu xam nga bu jëkkoon euh, dañ doon ba ñuy wax mécanique euh, dañ mécanique bu jëkkoon dafa yomboon ndax boobu oto yi ñett defe naa ñetti mbir lañ ci daan dépanne démarreur ah alternateur déclencheur oto yu jëkk yi léegi nag yii ñëw am yoo xam ne comme ni nga ko waxee cassette la cassette boobu ndax oto yëpp ñoo bokk même catégorie cassette ndax oto yëpp comme niñ leen di dépanner seen dépannage dañoo bëgg dëgg-dëgg nga xuus ci ba nga xam ne oto cassette bi niñ koy dépanner ak euh, oto oto oto oto simple bi bokkul lan lan dëgg lan moo leen warale moteur yi ndax am na magnétique wala amul magnétique wala simple la wala nangam nangam. waaw xam nga oto cassette moom américain bi dafa am na mu liggéey cassette am. almaa bi micro na jege sa gémmiñ. almaa bi noonu. Mhm. français bi noonu. donc am na ñoo xam ne tey dañuy naan spécialité lii laa comme man Mercedes laay def. Mhm. mais damay def oto yëpp maanaam damay xuus ci oto yëpp parce que da xam ne lii taal oto bii mooy taal oto bale rek. Mhm. réalité ñoo bokkul. ancien oto yi aussi problème biñ problème yi du ñetti paan yooyu la daan am. Mhm. non ancien oto yi moo gënoon compliqué ci li ma gis oto yi. waaw. ah parce que benn oto daan ñëw am ratement doo dugal machine. waaw. nga ne waa ji am nga problème piston. waaw jël sa risque déclassé oto bi. Mm-hmm. boo ko fekkul. yu ndaw yi bari boo leen ne lan mooy chambre xamuñu luy chambre. ok lan mooy see soupape xamuñu ko. ok waaw. Mm-hmm. jërëjëf kon damay wàññee ci euh, Babou njaay baabu Ndiaye euh, reebaas reebaas yan taxawaay la am ci dëkk bi ak reebaas ndax ñoom euh, dañ di ay groupe groupe boo xamante ne nii maanaam. Euh, dañuy jóg di dimbali askan wi wala seen bopp rek moo leen tax a jóg bëggoon nañoo xam loolu itam. waaw bon Revas euh, association la comme rek UNAPAS boo xam ne moom it dafa regroupé ay mécaniciens yàgg fi nag lool vraiment parce que lutte bi ñu lutte nii lutte bi ñuy xeex nii actuellement pour valoriser na ak mécanique defe naa Revas ñoo ko njëkk a commencé am na yeneen association ay promocabil yeneen yi fi nekk yëpp. kon donc association boo xam ne day jëm a xettali tout ce qui est artisanat mais nag bon comme nag affaire bi nii lutte bi ni muy demee benn ma un certain moment day am ay difficulté difficulté yow yow da ngay nekk nii koo xam par exemple da ngay gis sa bopp fii wala nga gis sa bopp fii loolu moo andi association yu bëri mais association yëpp benn objectif lay am mooy defar artisanat ci Sénégal defar mécanicien Sénégal waaw vraiment muy Rebaas ak muy UNAPAS ak ñoom benn objectif lay am mooy lépp loo xam ne mécanicien bi war na ko am si ay droit est-ce ci réew mi ñu réglé ko mm-hmm. waaw loolu daal mm-hmm. foofu foofu dama fiy ñëwaat dama fiy ñëwaat teg sa tànk sama teg fi sama baaraam ndax euh, buñ waxee mécanicien artisan yëpp la soxal mécanicien moom yaatu na ndax tey dañuy léeg-léeg da ngay dégg ñu naan safoor si ànduñu safoor si ànduñu wala ñii ànduñu. ndax waa Reebaas dëgg-dëgg booloo ngeen doon benn say ba tey par exemple tey ku ci am problème mu dépendance vite fait boo woowee sa morom problème ba nga am mu régleel la ko ndax loolu am na ci seen biir ànd gi daal ànd gi. bon man xam naa ne da nga am kii si tur yi nga jaawale parce que UNAPAS au lieu de Reebaas bon UNAPAS moom dañ UNAPAS je crois UNAPAS moom dafa nekk euh, association boo xam ne ñi fi nekk yëpp ay membres UNAPAS lañ. te xam ne UNAPAD ni muy doxee UNAPAD actuellement dafa dem ba un certain dafa boole mécaniciens yi nekk Sénégal yëpp boole électricien nekk Sénégal képp koo xam ne si automobile ngay yëngatu dafa la boole actuellement euh, dañu am benn synchronisation boo xam ne actuellement boo nekkee Dakar dafa mel ni yaa ngi Tamba wala yaa ngi Ziguinchor wala yaa ngi Kaolack parce que chaque client fu mu munti paan si Sénégal mhm. boo duggee si plateforme bi plateforme bi ñuy wax échange et tech. Mhm. échange et technologie. Mhm. boo duggee plateforme boo laajtee ne sama client dafa pàng nanga euh, benn pays. Mhm. benn région si Sénégal. dina ne jiw a nga fa. jiw moom ko woowoon tey jii. il est capable toog diagnostic oto bi wax la panne bi mhm. bu fekkee pièce la bëgg boo xam ne amul foofu noonu mu ngi Dakar mu envoyé la pièce bi mhm. nga ñëw mhm. benn ñaar UNAPAS dafa nekk loo xam ne aussi si par exemple programme yi Sénégal yi gouvernement bi teg actuellement si ay formation si ay yenn affaires yi UNAPAS mu nga xam ci biir formation bi ak yeneen yoo xam nag côté foncier ku wax problème artisanat Sénégal mhm. particulièrement mécanique mhm. problème foncier ngay wax mhm. déguerpissement yi bari na mécanicien fu mu toog di liggéey boo toogee benn moment ñu daax ko fa gis naa loolu mais nag am na deux deux deux deux aléas yoo xam ne ñoo si nekk bi si njëkk mooy ñun mécaniciens yi dañuy dem fu ñu neex rek léegi-léeg dañuy dem fàkk rek toog toog buñ toogee ba mu yàgg ñu foog ñoo ko moom est-ce comprendre mhm. beneen bi mooy état bi dafay jóg yëkkati mécanicien bi dem teg leen benn place boo xam ne. arrangé wu leen arrangé mhm. est-ce comprendre mhm. bu leen tegee parce que mécanicien ñaar fu nekk rek dafay sori dëkk bi. mais dëkk bi dañuy dem ba dëkk ba ñëw fekk ñoom dëkk bi ñoo ko fekk si. ñu nar ko yóbbu bu ñu ko naree jóg yóbbu ko feneen problème lay doon. parce que li si war duñ ko def yëpp. est-ce que ok loolu daal moo nekk déjà suñu problème. d'accord maa ngi ñëwaat ci yow kon damay jox kàddu gi madame Ndiaye madame Ndiaye yow euh, ginnaaw bi nga ñëwee nga ne jàngoo métier mi waaw léegi bureau bi lan ak lan nga fi liggéey parce que damay gis ay machine foofu yenn saa yi nga toog fa comme ni nga ko waxee noonu euh, machines yi loo ciy liggéey lan ak lan nga ciy liggéey dëbi nga ciy defar wala lan ak lan nga ciy defar bëgg nañoo xam bëgg nañoo xam dëgg-dëgg euh, lan mooy sa liggéey ci bureau bi dëgg d' accord waaw man euh, sama liggéey ci bureau bi mooy euh, tout d' abord client bu ñëwee dama lay dalal voilà laajte la euh, lan moo nekkoon sa sa tànk maanaam lan moo nekk sa paan léegi yow boo ma nee lii laa paan ak yooyu ñu waxtaan ci donc nga ne ma oto bi lii lii la dama lay laaj oto bi ban marque la nga wax ma ma ñëw lan la boo ma nee lii moo ci paan ñu jéem a xool lan moo ci nekk déjà dama la naan pour ñu xam lan la exact parce que bëgguñu tâtonner mhm. il faut que ñu diagnostiquer oto bi ba pare. Mhm. ñu waxtaan ci prix. Mhm. buñ d'accord ñu diagnostiquer la buñ ñëwee ne la ah lii ak lii ak lii moo paan maanaam machine bi dama ciy ñëw defaral la proforma. déjà dinaa la enregistrer ci machine bi ba pare. ci laa ci machine bi laa lay defaral proforma mhm. te tam ci machine bi aussi laa lay defaral tamit facture mhm. voilà madame Ndiaye ba facture bi du seer ndax léeg-léeg <laughs> léeg-léeg gars yi dëkk bi dafa metti de madame Ndiaye ba yëf yi saful sàpp rek <laughs> ndax sama classe gi moom ah ba du saf sàpp parce que débit <laughs> nit nga ñëw nga ko xoolal ko defal ko débit rek ñëw jox ko bu dee bu dee bu demee bu demee cinq cent mille un million nag eh, borom lu muy wax bagage yi ngay jënd ñi lay jaay ñoom ñoo cher. Mm-hmm. bagage yi moo cher. te gis nga client bi satisfaction lay ut. waaw lu donc yow loolu il faut kooku nga utal ko ay bagages yu bien ay pièces yu bien. nga koy mm-hmm. utal nga xam ne bu demee. Mm-hmm. du ñëw ne ah man de fii laa yóbboon sama oto li ñu ma defaral dara baaxul yow da ngay bëgg client bi am satisfaction. donc yow kooku boo koy defaral oto. pièces yu bien yu baax nga koy utal ay pièces d'origine nga koy utal. Mhm. pièces d'origine yooyu nag dafa cher nag. Mhm, dafa cher. waaw voilà bu dee main d'œuvre rek. Mhm. loolu ñun ñun dañu ñun ñu ngi fi pour ñoom. ah amul problème ah waaw ah. Ah, ah. yaa ngi ñuy nax de waaw <laughs> joxoon ñu joxoon ñu Babacar tonto Babacar euh, kàddu gi waaw tons. mais tons na xam nga li nga wax sànq. man xaw na maa jaaxal. nga ne oto bi nga xamante ne moo nekk simple. moo moo gën a difficile comme oto bi nga xam ne am na cassette mais loolu am na ñoo xam ne duñ ko nangu de parce que parce que li tax euh, léegi dañoo dem ba tubaab bi dafa créer machine oto boobu bi mu ko créer dafa créer machine boo xam ne comme ni ko madame Ndiaye waxe dafay ñëw nga diagnostiqué ko xool lan moo ci sikk bi boo xamee sikk bi ah nga daal di koy defar waaw léegi oto boobu kon nu mu gën a méttee defar comme ko oto bii waaw xam nga oto li tax mu gën a métti mooy li ma la wax sànq rek xam nga oto tey su ma ñëwee pour ma jànn si ko suñ ma ko taalalee pour ma jànn si ko bu dee côté Ratmar ci estomac ba laay dem foofu laay xoole li muy làkk baax na problème soupape la problème insecteur la tey am na xale yoo xam ne boo leen nee soupape soupape. Mhm. par exemple ban laam ak ban laam ñoo koy réglé xamuñu ko. Mhm. fii parce que jàpp nañ soupape kenn du ko réglé. Ah. waaw. parce que oto yii bu dee oto yii presque pratiquement doo régler soupape. micro bi na jege. waaw mhm. léegi bu dee oto yi doo régler soupape. Mhm. bu dee oto yi jëkk yi da ngay régler soupape da ngay ñëw taal oto bi ma xam ne chambre bi dafa dàgg. Mhm. nga dem ci ginnaaw gis ne oto bi di mu ma combustion bi muy gën baaxul. nga ne ah cylindre tel am na problème. dem demoon nañ ba ñun sax dañuy ñëw teye tuyau bi ne la cylindre bii moo am problème. parce que dañ ko tàmm. léegi nag machine boo ñëwee dugal pour nga bañ a jël risque bu dee oto yu bees yi lay wax fi nga jëm. Hmm. waaw. ok ma koo amul risque. machine la naan cylindre numéro 2 doxul. Hmm. nga xam ne boobu doxul. Hmm. bokk a yow bi nga xam ne nag sa bopp rek nga ko diagnostiqué. moo na man la oto yu jëkki ñoo gën a compliqué. ok parce que yoruñu woon matériel yi koy diagnostiqué. amul ok waaw. est-ce que itam sunu produit yi xew léegi muy lu demee ni ki essence. waaw ak gasoil. waa est-ce que bon qualité. est-ce que am na qualité. ndax souvent da ngay dégg ku naan gasoil bi ma jënd baaxul moo yàq sama pompe wala moo yàq sama sama laa. waaw ci li ñu gis. waaw jëkk moom amuñu woon problème boobu même huile amuñu woon problème boobu. da hmm. nga daan jënd li nga jënd yëpp drosine lay doon. mais marché bu fekkee dafa yaatu nag lépp mënul des fois nga man barke dama jënd naa essence boo xam ne dama mujjee dooli parce que dama départ balaa may yegg mbuur may mel ni essence sama biir oto la nekk. Hmm. ma jàdd ci beneen station doli 20 litres. Mm. doo ko bàyyi. doo doo ko bàyyi ci station laa ko jënd. 10 mm-hmm. litres kese laa fa jënd. Mm-hmm. seen métier mi ndax am ngeen ci problème ak client yi ndax souvent client yi Sénégal laay wax. Mm-hmm. des fois da ngay am client boo xamante ne nii dafay compliqué trop. nga ñëw dépanner ko oto bi mu ñëw. Euh, nga yóbbu oto bi ne la lang ma defaraloon baaxul wala oto bi euh, dama laa fay sama xaalis liggéeyaloo ma liggéey bu baax ndax jànkoon di ngeen jànkoonte loolu lool sax mais nag xaw na wàññeeku hmm. parce que même bu dee ancien oto bi sax balaa nga koy laal da ngay bindanteeg borom lu lu leer comme li madame Ndiaye wax waaw hmm. bu fekkee ne pont ngay defar nga ne pont bi laa yem bu dee boîte boîte la boo gisee leneen balaa nga koy laal nga woo ko nekk leneen hmm. fekk loolu mais bu yëg ñu dañuy dem rek léegi nag day indi problème waaye da ngay defar ba pare sax ñu ne sama oto amuloon problème bi waaw andil la problème waaw kon mbokki téléspectateur yi yéen a ngi dégg loolu yéen ñi nga xam ne yéen ngi yéen a ngi déglu euh, télé leeral euh, dafay baax ñuy ñëw ci euh, artisan yi seeni soxla ñu koy wax askan wi mën a xam lan mooy métier mécanique kon damay wàññeeku ci baabu baabu baabu nag ndax yéen yéen itam amu leen beneen problème boo xamante ne ni ndax maa ngi gis waa jam ñaajo Euh, ñu président tuxal mécanicien yu baree baree jam ñaajo mais est-ce que jam ñaajo googu mu tuxal ñëpp arrangé na leen parce que tey boo gisee mécanicien yi ñuy tolaanu nekk ci mbedd yi maanaam amuñu fu ñu nekk léegi wutal nañ leen foo xam ne ñanga fa euh, foofa am na ñoo xam ne dañ ne baax na am na ñoo xam ne dañ ne baaxut yéen waa inaa INAPAS lan moo ci seen xalaat ak lan moo ci seen taxawaay foofu waaw ci loolu moom vraiment ñu ngi remercier état du Sénégal particulièrement le président de la République si initiative bi mu jël parce que dëkk aussi day dox te bu fekkee day dox euh, da ngay dox ànd ak moom président de la République euh, euh, gis-gis bi mu am ba def Zampa bi à Diamniadio vision bu claire la vision de l'émergence la loolu ñëpp ànd lañ ci mais Sénégal ni ñuy defee benn affaire est-ce ak finition bi mooy problème bi suite mooy problème bi. intention bi c'est bien mooy tabax ay garage mécanicien dem te ñun mécanicien yi fu fu ñu yóbbu tabax nañu fi yéen ko moom mm. dañu fa dem liggéey mais condition yi nañ fay nekkee mooy problème bi parce que euh, Zampa bi actuellement bi ñu koy inauguré mais y avait pas plus de cinquante garages yu pare mm-hmm. bi koy inauguré y avait pas yu pare mm-hmm. te pourtant àll boobu yëpp nee nañ ay kii lañ fay def ay kii pour mécanicien lañ fay def mais depuis boobu ba léegi ñëpp seetlu nañ ne affaire yi avancé wul arrière mhm. ñu ngi toog di xaar. Mhm. léegi nag par exemple boo bëggee déggee fii mécanicien yi nekk fii. Mhm. Dakar yëpp nga ne leen tabaxal naa leen jam ñaajo. or yow jam ñaajo site ba nga def ne site bi parewul nga bëgg a fii mécanicien yi mais day andi problème. bu fekkoon dafa pare. fu ñu yóbbu ñu dem fa. wax dëgg yàlla bu ñu ne ñoo ko moom. fii mécanicien danañ dem liggéey parce que loolu rek moo ñu ñor. mais nag système ni koy defee nii ak Mm-hmm. Mm-hmm. salaamaaleykum wa rahmatulah dama koy dagg ci côté boobu rek. Mm-hmm. maanaam pour mécanicien dem ci site boobu rek. ne day visiter rek du dugg. ah bon te ñu ne ñu ne yéen ko moom. non loolu yéeme na de. yéeme na mu des itam beneen point boo xamante ni ba tey itam ci askan bi a côté askan bi la féete baabu. askan bi am na ñu bare nee nañu. jam ñaajo dafa sori ndax mën nga dëkk Dakar. wala foo mën a dëkk ci dakaar paan embrayage wala nga paan diksi euh, maanaam nga paan daal oto bi mm. paan ba taxaw ba taxaw mm-hmm. léegi amuloo loo fay pour teg ko ci benn oto plateau mu yóbbul la war a fay soixante mille wala quarante mille mu génn la Dakar voilà wala ca ba pare ñu ne péage bi kenn du ci remorque oto conséquence boobu it euh, askan wi dañ koy jàmbat mooy li ma la wax ni waaw xam nga dama ne la Sénégal dañuy am benn vision bu claire mais ni ñu koy démarché at ni ñu koy defee mooy andi problème parce que boo tegee benn mbir da xool li ko wër yëpp nga jàngat ko saytu ko ba pare nga doog a dugg si loolu. Mm-hmm. effectivement gis nga déguerpissement bi ñu wax ne mécaniciens yi dañuy génne biir Dakar. Mm-hmm. c' est pas possible mënut a nekk xamul sax mënut a nekk. Mm. parce que il faut mu am li ñuy wax des garages de proximité. garage de proximité yooyu ñun nangu nañ état bi nañu garage yi pour mu nekk garage de proximité lii at lii at lii moo ko war. Mm-hmm. ñu dëppook norme yi nga xam ne norme d'hygiène norme de sécurité yi nga xam ne moom mooy tax ñu nekk si biir dëkk bi mm-hmm. bu defee ñi nga xam ne dañuy panne war a soxla dépannage gratuit rapide est-ce comprendre mm-hmm. boobaa ñu mun a xam fu ñuy dem exactement mais boo génnee ñëpp tey jii ñu dem fa c'est pas possible loolu mënut a nekk mënul nekk dans tous les pays du monde mm-hmm. dafa am garage yoo xam ne dafa nekk anti cohabiter avec la population mais nag foofu la problème bi nekkee nag. Mhm. mécanicien cohabiter ak population moo xaw a jafe. Mhm. si nekk ni mécanicien bi ak jëfini mécanicien bi. Mhm. te loolu ñun ñoo war a fóot suñu yëre. ba mu set ñu mun a toog ci biir. parce que boo bëggee nekk si koñ nga ne yow da ngay nekk koñ bi est-ce te yow lu la neex ngay. ngay gaale say oto. lu la neex ngay salté koñ bi sa loolu tam mënut a nekk. il faut mu amee norme yoo xam ne ñun mécanicien ñu ñoo ci war a taxaw defaraat suñu bopp fóotaat suñu yëre ba mu set. est-ce que mm-hmm. mën a nekkat ci biir nit ñi. Mm-hmm. est-ce que itam baabu euh, ñu mel ni yéen ñii bari na ndax tey boo ñëwee fii ci place bi macha allah dañ dañoo da ngeen a organiser wu place bi ku fi ñëw rek da dafay xam ne baabu Ndiaye organiser wu na ak madam madamam euh, ndax ñëpp mel nañ ni yéen ñëpp meluñu ni yéen euh, comme li li li parce que ñëpp mënuñoo am lu mel nii ah, ñëpp mënuñoo am lu mel nii moo tax tol tolaanu gi ci mbedd mi metti trop. ndax damay gis état chaque jour mu déguerpisse nit toroxal ko jël ay bagaasam yàq ko ba ci lu mel ni tey ancien piste bi ancien piste bi nga xamante ne tey kullu mécanicien foofu nga nekkoon jëlee nañ leen fa mécanicien yooyu amatuñu place ndax waxoon nga ma fi si ci rajo bi ne ma mécanicien yooyu am na ci ñoo xamante ne nii sax ñun ci suñu jëmi bopp dañ leen di jël mm-hmm. dañ leen di jël di leen aider ci benn côté mm-hmm. pour ñu ñëw di fa dóor seen waar mm-hmm. ndax amuñu foo xamante ne nii itam nekk nekk nañ fa est-ce que itam état buy def yu mel noonu dina dafa war a waxtaan ak yéen mais dafay jékki-jékki rek def ab dogalam voilà gis nga si côté boobu noonu euh, dama lay wax déjà ne liggéey rek mooy fay ñun fii bi ñuy sanc fii di ñëw sax mbaaw zéro franc lañ fi ñëwee at lan euh, wóolu suñu xam-xam wóolu suñu expertise kese moo ñu fenn li ñuy def nii tey ji du dërëmu kenn liggéey rek moo ko waral dañoo liggéey ba yegg si fii te ak bëgg lu baax aussi bëgg formaliser wu tey gis nga baabu mii boo demee garage am nii la mel kii boo demee garage moo ma gën a garage actuellement mhm. kii noonu mhm. te ñu ñëpp INAPAS parce que INAPAS sa njëlbeen mhm. li mu wax mooy formaliser leen seen i garage yi defaraat leen seen garage te ñu ñëpp fa lañ nekk bi si topp mooy euh, booy liggéey si benn affaire ren ba déwén da nga war a xoolaat sa bopp xool ndax li ngay liggéey avancé noonu avancé at nan ngay investir parce que nag liggéey lekk doo mos a am da ngay liggéey investiraat mm-hmm. bu fekkee da ngay liggéey chaque jour def sa poche wàcc moom dem mooy informel bi ñuy wax nii mm-hmm. informel bi ñuy liggéeyee mm-hmm. moo tax ñu duñ am xaalis mais mécanicien dafa liquide bu fekkee dañuy liggéey li si formel am ay par exemple bureau boo xam ne da nga am ku lay géral nga xam ni ngay génne say dépense ni ngay gérer say dépense sa waaye boo liggéeyee di nga mën a investiraat. Mhm. investiraat si biir garage bi la wax. leneen juddu est-ce mhm. boobaa muy mun di jur ngay transformer parce que. Mhm. transformation bi du benn jour du ñaari fanaa. Ah. da ngay jóg di ko def pendant des années. nga dem assurance nga parce que affaire du am fu muy yem. amul fenn fu muy yem mais di nga dem assurance mu leer na ne yow mi kat yaa ngi avancé. te ku si nekk dafa ni nga isaabee sa bopp. nu nga war a isaabee. say say sa sa sa place. boo liggéeyee ba fin d'année nga taxaw xool. nga def benn genre compte xool man lan laa gagné si année bi lan laa war a investiraat pour déwén. Mhm. est-ce comprendre. moom ma gën a yokk. Mhm. bi si topp mooy affaire xeex bi ngay wax nii. Mhm. pour état bi. ñun amuñ chance tu pour pourquoi amuñ chance parce que ku si nekk association yi bari nañ biir Dakar bari nañ biir Sénégal de te ñu ngi dans toutes les régions du Sénégal mais association ni muy xeexee moo baaxul parce que dañuy xeex ku si nekk sa côté. li may wax di ko jooytu chaque jour mooy que war nañoo am benn instance nationale boo xam ne fédération de toutes les associations mécaniques. Mm. que ce soit Revas. ñoo koy moom Revas 2 mu nekk euh, UNAPAS mu nekk Promocab ñëpp. ñoo koy moom toog mm-hmm. ñu def benn assise nationale. Mm-hmm. sur l'artisanat. Mm-hmm. est-ce que comprendre association toog ñu jéem a fédérer toutes les associations. ñu am benn genre instance de décision boo xam ne dañuy xàccandoo di dóorandoor. dans ce cas si lay xeex bi di gën am doole mais xeex nii nii nii nii ku nekk dama sa côté. loolu je sais que du dem du dem merci. Mm-hmm. voilà damay ñëw ci madame Ndiaye madame Ndiaye waaw madame Ndiaye nag tey dina dina am lu lu jaaxalati jigéen ñi. ndax euh, wax vraiment euh, di di sëy di yëngu ci liggéey bi madame Ndiaye loolu loolu nan nga koy organiser nekk fii seere seere seere kër ga euh, ñëw fii nekk ci mécanique bi war a togg war a yàq waaw madame Ndiaye loolu moom en tant que sa mbokku jigéen ñi nga xam ne ñi ngi lay seetaan ci télé leeral dañoo bëggan ban ban organisation nga def tey ba ba mën a ba mën a jàppale sa borom kër bii di baabu Ndiaye Euh, lépp loo gis rek organisation la donc euh, voilà ku ci nekk rek ak ni ngay organiser sa kër rek man par exemple su ma xëyee dinaa lu ma wax a def kër gi dinaa ko def xam nga am naa nag ku may jàppale ci kër gi mm-hmm. voilà mais du tee euh, dinaa ko ne lii ak lii ak lii. Mm-hmm. la ñuy def. waaw su ma wàccee samay doom maa leen di gérer ndax instant bi mm-hmm. su ma wàccee ba sangu ba toog. sama doom ku ci nekk dina indi si kayam mhm. dinaa la xoolal mhm. di nga resté dinaa def ak yow exercice ensemble mhm. te ñoom ñëpp matin bi man maa leen di préparer gunge leen école ñëw door a préparer pour ñëw ci garage bi et pour man boog sama côté méttiwul voilà méttiwul métti boobu noonu parce que déjà peut-être xaw ma peut-être li ma dëkk ci li ma dëkk fi ma dëkk soriwul mën na nekk tamit waaw mën na nekk fi ma dëkk soriwul mais mm. man organisation bi moom méttiwul daal. maanaam da ngaa bëgg mën naa jongler les deux. waaw da ngaa bëgg moo tax du <laughs> metti du metti xam nga li nga bëgg. moom du metti mm-hmm. ndax ma dam Ndiaye tey ku ñu ku bu bu bu mbay bajaan ñëwoon tey yor otoom. Mm-hmm. ne ko dama paan moom kenn kot. man naa ah. dépanner oto bi. ah waaw ah. <laughs> mën naa la dépanner kañ. Ah, bon. <laughs> parce que dama bëgg ñi lay déglu ñi lay déglu xam ne <laughs> métier mi amul góor amul jigéen. looloo tax ma lay laaj loolu. waaw mi ngi noonu voilà <laughs> ndax ma madame Ndiaye tey bu ñu bu Mbaye Badiane ñëwoon gaare otoom. ne ko defaral ma oto bi. Mhm. mën na kaa defar. waaw ah. Euh, madame Ndiaye nag moom ah. Mm. fu mu gën a spécialisé woo. Mm. mooy euh, vidange beeg. changer cartouche yeeg yooyu. ak entretien entretien bi. Mhm. voilà foofu laa gën a basé. yu oyof yooyu voilà mi ngi doon entretien bi. ak diagnostic bi mën naa la ak bind affaire boobu di joxe xaalis. <laughs> waaw bind affaire bi di joxe xaalis voilà bu fekkee la moom mm-hmm. mën naa la gérer entretien bi. Mm-hmm. voilà mm-hmm. mën naa la vérifier sa. Euh, cartouche cartouche yeeg. waaw bougie yooyu nag ak huile bi. waaw lépp mën naa la ko xoolal daal. te oto yi bu ñu ñëwee tamit dinaa xam ban huile mooy dem ci oto bi yeeg yooyu noonu soit 15 quarante cinq 30 tek yooyu noonu 10 kii loolu daal mën naa la ko gérer daal. est-ce que huile yi foofu ma ñëw fi huile yi. ndax am na bu ci gën ah, am na bu ci gën. am na boo xam ne bu yemamaay la. am na mhm. boo xam ne seer na am na boo xam ne seerut. ndax léeg-léeg man damay ñëw yor quinze mille francs mhm. sama oto eh, yàgg fi. Mhm. ah sama poche vide. ndax éwilu quinze mille boobu am na fi ndax éwi éwilu cinq mille am na fi ndax éwilu cinquante mille am na fi. parce que dañu bëgg eh, gars yi mën a xàmmee mën a mën a dégg xam ne éwil lii lay jar éwil bii ak bii am na. waaw. d'accord. waaw fii nag moom euh, bu dee fii parce que man dafa am euh, benn xaw ma nag ndax mën naa tudd wala. Ah, bu ma def publicité ci euh, émission la. voilà huile bu ma utiliser moom huile sèche la tudd. Mhm. waa Kaytano ñoom ñoo koy indil. Mhm. ñoom ñoo may indil quinze quarante bi. ñoo indil cinq 30 bi. ñoo may indil 10 10 40 bi. bu ci gën a oyof. ban euh, moo ci gën a lese. waa 15 40 bi. boobu moo ci gën a lese. boobu wax ma prix bi wax ma prix bi. boobu moom man maa ngi koy jaayee 18000. 18000 waaw no boobu attanu ko joxal ma tons <laughs> tons. man boobu attanuma ko boobu moom dama koy bàyyeek dama koy bàyyeek Dame Dieng ak madame Touré ak Birayim Touré ñoom ñoo attan boobu iwil boobu ba madame Touré wala maam Oumy Laay sama caméraman waaw toos tey damay ñëw nag damay ñëw nag ci wàllum emprunté emprunté parce que kuy liggéey da ngay soxla emprunté da ngay soxla emprunté waaw ndax euh, emprunté yi ngeen di jël di leen jàngal ndax léeg-léeg yàkkamti dafay am foofu moo tax ma posé question boobu léeg-léeg yàkkamti dafay am ndax emprunté bi euh, dinañ dinañ dinañ dinañ euh, seen métier dina mokk ñu doog a dem wala patron bi ne ko kat yow qualifié nga xaaral ma ma ma libéré la beral la sa garage ndax souvent da ngay gis mécanicien boo xamante ni da ngay dem di dépanner ci moom mu yàqal la sa oto parce que fa mu toogoon di jàng am njàngam des na ndax loolu itam mi ngi ci seen biir waaw loolu mu ngi suñu biir parce que métier moo gis rek. Mhm. dafa am ñi ko bëgg am ñi ko bëggul. des fois da nga yor am planté yoo xam ne lay wóor ni kii moom mënul doon sax mécanicien da ngay mujjee buy def da koy boolee kenn. Mhm. mu koy mu koy mu koy soutenir. Mhm. pour nga bañ am erreur. am na ñoo xam ne bu ñu jàngee ñaari at. pour ñoom mën nañ micro bi nan la jege tuuti. pour ñoom mën nañ. dañuy daal di. beru wala ñu tapaasal dem seen yoon. Mhm. ba léegi sax ñun dañu wàññi emplantage man dama wàññi bopp ñun sax dañu wàññi. parce que dama ciy bari ay problème mhm. yoo xam ne des fois nit def problème ñoo sa emprunté la ñu jël si la nga ñëw xoolal ko dimbale ko. Mhm. mais dama ne mu yàgg nag man dama sensé méthode. am na ñoo xam ne du leen jël. waaw am na yoo xam ne aussi booy dem te euh, maanaam ma gis ne mu monagoo li nga def du ma la defal sama certificat. déedéet waaw. waaw parce que loolu boo gisee man laaj ko. damay gis mécanicien yu baree baree bari dañuy sol seen tëni rek. dem ci benn sàmm njaay boo xam ne yor oto bu seer. dem di fa dépanner. ñu naan ko cataliseur bee yàqu. ñu naan ko soupape baa dëng. ñii naan ko nangam sangam. seen xam-xam dafay des. ci ñu mel ni yéen ñii dañoo war di bootu ci seen ginnaaw. ndax ay boroomi xam-xam ngeen ndax tey ku ci mel ni baabu njaay mii man xam naa ci dara ndax man am na fu ma jaar ak moom te am na fu mu jaar ak ñeneen kon ñu mel ni yéen dañoo jar di bootu ndax emprunté yi la yàlla xam doy na léegi xaalis bi lañ gën a jiital ni métier bi voilà léegi foofu itam ndax emprunté boobu ngeen di jàngal euh, ci oto yi nga xam ne moo xew léegi ndax dafay laaj emprunté bu jàng euh, bu jàng wala bu jàngut ci am solo nag foofu moom fi ngay jëm si moo am solo maanaam jamono bii dinañ dem ba ku jàngul sax emprunté bu jàngul sax gaa duñu la jël. ah waaw parce que parce que oto yu bees yi ni ñuy ñëwee la. Mhm. xam nga ñun chance biñ ci am. Mm. am na xale yoo xam duñ ko am. parce que ñun dañu jàng ancien bi jàng nouveau bi donc xale yi chaque jour laa sama booy dama naan dem fexe leen jàng. Mhm. parce que des na tuuti ku fi indi oto boo dugal machine ci otom doo laal otom. Mhm. waaw. te soo mënul nag. soo mënu doo dem doo dem doo dem ci emprunté yi dañoo dañoo dañoo dañoo kii foofu it ma laaj la ndax léeg damay gis emprunté di loru itam ci seen métier mi maanaam manqué matériel am ca garage ba mhm. man gis naa ci emprunté boo xam ne eh, eh, da doon wàcce moteur tëdd ci suuf kiriñ oto bi kiri eh, moteur oto bi rës ci kawam waaw loolu itam dafay faral di am ci seen biir ndax matuwaay yooyu itam di ngeen koy sooraale ak itam xale bi nga xamante ne day doog a ñëw nàndagul xam nga ngeen di ko kirigloo loolu itam. voilà di ngeen koy sóoraale. dañ koy sóoraa ma foofu maanaam loolu fu mu amee li ci ëpp bokk chef de gare mooy sàggan parce que man li ngay gis sooy doog a ñëw dafa am fu ma lay yemloo booy monté batterie dama ñëw taxaw sooy kirij oto damay taxaw. am na moo am na nooy duggee ci oto dama naan génnal génnal bu duggee nii duggal nii nii ngay duggee pour am buy rës mhm. parce que oto mën nga kale mu baax nga am kal bu baax mais dara mën na ko laal mu mhm. wala oto yi arrière ci ginnaaw ah. ndax man gis naa koo xam ne dafa toog ci kapootu oto ci maal bi waaw benn emprunté ñu ne ko avancé oto bi sama koñ la waa ji dëkk ñu ne ko avancé oto bi au lieu mu avancé mu arrière tànc tànk ba tànk ba damm ñaari damm damm loolu itam dafay am ci seen métier bi ndax it mat nay bàyyi xel xale yi nga xamante ne mënaguñoo dawal ak yooyu itam. waaw xam nga xele moom man li may wax toujours man oto si oto bu gaa damay rocc caay def sama poos su ma lay liggéeyloo dama lay damay ñëw taxaw nga def li ngay def wala ma boole laak ku la ku la mag mu def li muy def xele moom du ma ko bàyyi ci direction non mm-hmm. même su ma lay jàngal dawal naa la jàngal dawal ci beneen fànn boo xam ne du demee noonu. Mhm. ma waaw. Mhm. jaajëf kon damay wàññee ko ci président président bu ñu paree ci yow nga joxal ma sama waa ji ma am lu ma ko laaj voilà euh, Babou mhm. euh, léegi euh, comme yéen toujours rek ay jafe-jafe dafa nekk ci seen biir secteur bi ay jafe-jafe dafa nekk ci seen biir secteur bi parce que buñ ne mbooloo dañuy booloo doon benn xàccandoo dóorandoo comme ni nga ko waxee toujours foofu noonu comme li ma la wax sànq rek ni mu amee ci transport amee ni fee amee ni fii noonu la amee ci seen secteur bi léegi loolu yéen nan ngeen mën a def ba mu deñ ba mu deñ parce que tey émission bii ni mu toll tey artisan yu bari boog waral nañ fi teew ñëw xam ne lii seen émission la ca it seen njariñ la message bu nuy jàllale la pour àdduna bi yépp seetaan ko kon yéen lan mooy seen ay eh, nan ngeen nan ngeen war a lan moo des dëgg-dëgg ba loolu manque ci yéen ñëwaat. Euh, du ma sonn di ko wax ah parce que tant boole wuñ rek comme ni nga ko waxee liñ bëgg duñ ko am parce que euh, dafa am ay affaires yoo xam ne dama koy gis si yenn association yi muy les associations bëgguma tudd seen tur mais association yu bëri na Sénégal yoo xam ne am na association yoo xam ne dem nañ ba biir palais. ba biir palais ba biir palais toog waxtaan ak président mu régler seen problème mais mosoo dégg ñu ne association diw mécanicien wala artisanat am na foo xam ne xàcc na ko dóor ñoom ñëpp amul. te gis nga man li may mbébét boobu ba léegi mooy que ne il faut que artisanat bi nekk benn gis nga UNAPAS mun na nekk di gérer ay businessam ay association à côté Revage di ko def Promocab di ko def ñeneen ñi di ko def mais terewul. ñun ñëpp ñu bokk benn gis-gis benn bëgg-bëgg di dëggandoo di waxtaan. Mm-hmm. te ñu bañ a nekk ay wujju mm-hmm. c'est dangereux. Mm-hmm. te association yu bëri dafa mu mel ni ay wujju lañ da ngay gis kii buy wax a kii da ngay gis ne sax dafa am réticence te yooyu moom waratul parce que dañu euh, toll benn niveau boo xam ne actuellement euh, intérêt personnel waratuñ ko xool. intérêt général la ñu war a xool. intérêt général mooy suñu génération bii di ñëw nii ñu bàyyi leen loo xam ne dafa dëgër. bàyyi leen benn genre cité de l'automobile mm-hmm. boo xam dañuy wóor ne lii nii mm-hmm. seen aîné yi ñoo ko tabax bàyyi ko fi mm-hmm. cité de l'automobile war na mun a def Sénégal war na mun a am fii si dëkk bi Zampa bii ni tey jii ni nga ko commencé nii war na mun a dem ba mécanicien yëpp la plupart des mécaniciens ku si nekk am fa sa place ñu koy liggéey jaakati pièce nekk fa euh, mécanicien nekk fa tourneur yi nekk fa tôlier yi nekk fa électricien nekk fa vulcanisateur yi nekk fa bu ko defee boo xëyee da ngay dem directement jam ñaajo dem liggéeyi néanmoins garage yi des fi mais tey jii bu fekkee par exemple UNAPA dafay xeexal boppam euh, ñii di xeexal seen bopp ñii di xeexal seen bopp mais diviser pour régner état bi loolu moo ko arrangé. Mhm. état bi. Mhm. diviser pour régner moo ko. Mhm, moo ko arrangé état bi li mu tey tey tey tey tey tey su fekkoon def leen benn fédération bu dëgër. jàppook ñoom. ne carrément lii lañ bëgg. ñu gis ne mbooloo mi baax na. gis nañ am nañ ay objectifs yu clair gis nañ am na ay projets yu wóor buy woo joxe. benn instance bi la koy joxe instance bi diviser ko si ñëpp à part mhm. loolu mooy doxal actuellement artisanat mhm, mais ñii di gis seen bopp ñi gis seen bopp frustration lay andi. Mhm. moo tax dafa dem à a fin affaire dafa mel ay wujju lañ doon. est-ce que est-ce que est que yéen a waxtaan. non li tax tasaaroo gi am est-ce que itam yéen a ngi woote ay assemblée sénéral di waxtaan parce que itam mbir moo gis itam am na loo xam ne mooy tax mu avancé est-ce que yéen itam yéen a ngi woote ay réunion waxtaan parce que liggéey bi boo ko toppee ah, boo gestoo seen madame Ndiaye xam nga itam loolu itam. waaw ah. kii Badiane. Hmm. dafa am loo xam ne itam foog ma wax ak sama mbokk yi. Ah. gis nga li ñuy ut sim sim kii bi si artisanat bi. waaw kenn du ñu ko jox te ñun ñoo koy jëli. bu fekk kenn suñu nangul bàyyi benn une heure de temps garage am génn dem doxi loolu. Mm. kenn duñu ko doxal. dafa dem à la fin mécanicien dafa foog ne moom bu génnee garage am une heure de temps. day mm. amaana la muy réglé yi si biti moo ëpp li mu war a liggéey. Mm-hmm. dañu war di léegi-léegi di jóg suñu bopp est ce que xam nga benn affaire pour jóg rek lay ji papier suñu papier garage pour dem formaliser ko sax. Mm. ñu bëri tey ji boo doon si dëkk bi li ngeen koy def aw ma jot la ñuy wax. te garage bu te garage bu nekk dafa war a am ay këyit. dafa war a dem outil linéaire registre de commerce formalisé wu est-ce que comprendre mhm. dem at euh, euh, chambre chambre de métier ut mhm. kartam est-ce que comprendre mhm. loolu yëpp taxaw xaar parce que tey tey tey tey bu ñu woon tey jii ne dañ la bëgg a jàppale il faut nga am ay kayit yoo xam ne dañu sukkandiku ne kayit yi war na yow mi mécanicien nga yow mi garagiste nga foog nga am ko pour ñu mën a dimbale ok xaaral joxal ma kàddu gi sama xarit boobu ma am lu ma ko laaj. Euh, voilà léegi man dafa am loo wax sàng ma laajaat la ci am beneen question bu ma la ci tegal ndax nee nga da ngeen a dem jam ñaajo di def visite dugg leen ca ngeen doon ay artisan kon kan mooy dugg ba pare lan kon nga war a yaakaar ci état parce que la état defar woo la fa yow nga doon ko nga dem ba foofu ñu ne la bëgg a ñu ne la doo dugg kon lan lan ngay xaar ci état ak lan ngay yaakaar ci état wala euh, di nga fa am avancement wala dangay ngay euh, reculer. waaw loolu bu fekkee ne am na avancement tamit xam naa ne lu yéex lay doon. mënul doon lu gaaw ndaxte ñi nga xamante ne yow mi nekk mécanicien te ñun période bi ñu fa dem sax ñu ngi am formation foofu noonu ci école bi. ñu ne dañuy doxantu pour def visite dem xool garage yi bi ñu demee foofu ñi ñu fekk ci bunt bi ñu dañoo agsi dugg Hmm. si bunt bi yegg si ne leen dañoo bëgg a visiter garage yi ñun ay mécanicien lañ te nee nañ mécanicien yi lañ ko jox hmm. dèjà ñu ngi soloon ay tisetu kii si tisetu centre bi hmm. mu am insigne beeg yëpp bon xam nga ni ñi si centre bi lañ jóge mais nanguwuñ ñu bàyyi sax ñu dugg ci biir dañu ne non fii kenn du fi dugg te ñiñ fa fekk du ñu ay sénégalais ah du ñu ay sénégalais yéen ngeen doon ay sénégalais ñu ne yéen la ñu defaral yéen artisan yi ah waaw ñu ne leen du ngeen du ngeen. dugg ñu ne du ñu dugg foofu du ñu dugg ci biir. waaw kon kon étranger yi kon kon étranger yi ñooñu ëpp sañ-sañ ci réew mi. ba pare garage yi tamit biñ koy tabax. waroon nañ ñëw ci euh, garage bu nekk ñu laaj la sa avis noo leen gisee nan la ñuy tabaxee centre bi. Mhm. lu mu laaj parce que ñun ñuy nekk ci garage yi tout le temps ñooy xam sécurité garage yi li fay am. Mhm. faay yi fay am parce que foofu euh, bi ñuy njëkk a dem di def visite bi foofu ak Macky Sall. Mhm. bi mu koy inauguré. bi ñu ñëwee xool garage yi nu mu bindoo rek dèjà amul sécurité parce que garage yi dafa jege dèjà boo dugalee oto bu fa jëyee amoon pour oto bi génn problème la parce que dafa xat loolu yëpp dañ ko waroon di sóoraale. Mm. ñëwoon waxtaan seeg ñun ñi nga xam ne nee nañ ñun lañ ko defaral dañoo waroon waxtaan ak ñun laaj ñu suñuy avis. Mm-hmm. su ko defee même boo boo dajalee ku si nekk. Mm-hmm. lu mu joxe. ci garage ñu tëggaat ko xool nan la ñuy tëddaree garage yi mhm. wala ñu jox ñu ko sax jox ñu suuf si si jëm boppam mhm. ñun ñu defaral ko suñu bopp waaw terrain waaw mhm. loolu sax moo ñu gën a loolu est-ce que est-ce que est-ce que loolu itam yéen a ngi ciy dox terrain boobu nga tudd noonu parce hmm? que parce que yéen ni ngeen toll euh, macha allah bu fekkonte ne tey euh, non man euh, man sama objectif sax du dakaar man pour man mécanicien war na mën a sori dakaar waa péage bi amul problème àdduna day dox gis nga ñi nga ñun tukki mais ñu tukki nettali nañ te vidéo yaa ngi fi internet a ngi fi da ngay gis koo xam ne day yore otoom nekk Paris buy dépanner day dem ba Marseille Sénégal da fii nit mun na fi war a mun a jóge dem ba xombal dépanner ji parce que machine ngay yore. di ñëw di dépanner te at fi mu toll nii dafa am ay oto yoo xamante ni mooy voiture yoo xam ne boo paanee mooy remorquage bi mooy ñëw yàpp sa oto yóbbu ko am na si ñoo xam ne man am naa sama benn client wax ne dafa fay lool ba fay ko si assurance am otoom fu mu munti paan oto dépannage moo koy ñëw jël indil ma ko sama garage ma dépanne ko woo ko mu ñëw jël si ko wala ñu libéré ko comprendre nga affaire yi mooy doxee noonu mais cité de l'automobile man bi ma gisoon moon que jam ñaajo dafa te daanaka suuf si yëpp occupé nañ ko cité de l'automobile dafa war a am cité mécanicien wala cité artisanat ci wetam fële xaw ma prévoir nañ ko fa wala prévoiruñ ko fa waaw mais man bi ma doon xalaat sax xombal laa ko doon xalaat ñu def ko fa waaw boo xamante ni da ngay fay dëkk ak sa famille Moussa Ndiaye dafay nekk madame Ndiaye nekk fa xale yi nekk fa am école école boo xamante ni c'est unique pour suñuy enfants suñuy doom ñu nekk fa di jàng yaa ngi dégg parce que voilà da ngay mën a vivre tranquillement amul kenn kuy génn naan yéen a ngi ñuy tànkal yéen a ngi ñuy déranger waxuma la mécanicien mais fi mu toll nii tôlier fu mu nekk sax problème la tôlier man pour ma am tôlier léegi damay wër ba sonn tôlier bi ma am fu muy liggéey ci côté école la nekk bu tëggee ñaari kii déranger élèves yi jàng bon xam nga dakaar léegi ni ñu koy waxatee te euh, comme bi am solida domaine industriel soridaa bi amoon Sorida si jëm boppam man fa laa jàngee métier da ngay gis garage bi lépp fay am garage général lay doon sama garage bu maam la woon da ngay gis day am day am tôlier am peintre am soudeur man tey jii boo ma joxoon salimoo léegi ma suude soo ma joxee battre ma tëgg ko soo ma joxee tapissier léegi ma ñaw ko da naan kii fan la jàngee man dama jànge woon ci garage bu mag xam nga ma la électricité mécanique tout mais léegi loolu amatul da ngay dugg benn garage mécanique rek nga fay fekk. nga dugg ci beneen garage tuulier kese nga fay fekk loolu tamit suñu suñu problème la nañ ñu dimbali si côté boobu ñuy mën a am ay espace yoo xamante ni dañ nit ki bu duggee foofu otoom soo paanee dañ lay mën a dépanner ci lépp maanaam client bu ñëwee panne climatisation dañ koy mën a dépanner bu paanee tôlerie lépp mu nekk sur place nga xam ne dañ koy dépanner mu dem mais da ngay man dèjà man ki may defaral clim ak sama client yi moom mu ngi ba HLM su ma liggéeyee client ba pare dama koy renvoyé ba HLM pour mu dem foo xam nga loolu na parce que espace. ca kooku yow la wóolu. man la wóolu. Mm-hmm. ok waaw. jaajëf mi ngi noonu. mi ngi noonu kon euh, ma tourné ci madam Ndiaye madam Ndiaye euh, lan ngay ñaax sa moroomi jigéen yi parce que xam naa ne li ñu dese ci ci waxtu bareetul euh, sa mbokku jigéen ñi lan nga leen di ñaax parce que nag itam dañuy wax góor jàpp ci góor waaye itam jigéen jàpp ci jigéen dafa jot sëkk. Mm-hmm. parce que nii ngay dimbalee sa borom kër. ci liggéey bi nga xam ne moom lay def man day dama si kontaan ci xam naa ne Birahim Touré ak Dame Dieng ak madame Touré buñ la seetaanee tey ci euh, Leral TV dinañ kontaan bu baax a baax lan ngay digal sa moroomu jigéen yi ndax ñu jigéen ñi ñu ci bari liggéeyatuñu dañuy xëy toog ca war dëgg yàlla war nañoo mën a xool lu ñu def lan ngay wax sa moroomu jigéen yi. <laughs> dama leen di wax rek ne euh, léegi ci jamono bi ñu nekk nii léegi toog warul kenn. ni góor mën a jóge fajar dem di uti jigéen tam war na koo mën a def euh, mhm. nañu nañu nañu nañu nañu nañu jóg daal bàyyi toog bi bàyyi tayal bi daal mhm. <laughs> nañu jóg dem jàppale seen borom kër mhm. voilà nekk ci dara daal bu sëñ bi nekkee ci lii bu fekkee mën nga nekk ci même métier bi mu nekk nga nekk ci bu fekkee mënoo ko tamit mën ngaa yi leneen tamit mhm, toog daal amul njariñ daal waaw toog toog amul njariñ daal dañ mhm. jóg daal voilà ndax mhm. métier yàpp bëri na fi voilà loo bëgg def rek mën nga koo def daal waaw loo bëgg a def mën nga koo def parce que Sénégal boo toogee rek da ngay nelaw ca boo nelawee xayal daal waaw xam naa li ñu defee ay voilà li ñu ci ay minute euh, dafa bariwul léegi maam Oumy ci ginnaaw waaw acca kon voilà kon xam naa ni dañuy tënk rek euh, baabu dañuy tënk ak Babacar dellu ci yow ndax euh, temps yi gis naa ñu la doon jox benn diplôme moo bëgg ci ñëw ak yow voilà tonton waaw lan sa mbokk yi waaw man li ma leen di wax li ma leen di wax daal mooy dañ xàcceendoo dóorandoo nekk benn waaw li Pape Ndiaye wax rek bañ a wujje kenn ku ne am na loo xam ku ubbi gaal rek am na loo xam mais ndax xam-xam yee tolloowul kenn ku ne xam ne kii sama nawle la ñun ñoo bokk métier mi tey Pape Ndiaye bu xëyee seerewul ma am lu ma ko jox ma jox ko mu seere ma am seerewu ma xëy mu jox ma parce ñun ñëpp benn lañ bàyyi wujje bi daal waaw man loolu laa di dënk daal Babou Ndiaye euh, léegi xam naa ne li ñu def ci ay ay 3 minutes yooyu moo ci des tax léegi Babou euh, maa ngi gis ñu la doon euh, jox benn diplôme yaag sa naataango bi hmm. di polom boobu di diplôme lan la nga résumé ko taf-taf waaw di profiter occasion bi di remercier centre sectoriel bu Diamniadio hmm. à travers son directeur monsieur Tavares di remercier aussi directrice 3FPT ak euh, directrice DER représentant DER ñoom ñoo ñu à travers UNAPAS ak yeneen association yi euh, si lañ dem euh, vraiment def formation bi DER moo ko financé formation bi c'était sur l'entrepreneuriat ak diagnostic automobile dañoo DER moo ko financé trois EPT exécuté ko est-ce que comprendre centre secteur bu jëm ñaajo fa lañ defee formation bi bi ñu paree na formation bi si lañu jox ay attestation attestation yi wane ne yéen kat def ngeen parce que problème lañ am actuellement mooy que ne euh, dafa am ñoo xam ne Sénégal dafa am deux lignées ci euh, euh, domaine bi dafa am ñoo xam ne dañu am expérience si biir garage yi dégg am ñoo xam ne dañ jaar école pour nag may chance ñi nga xam ne am nañ expérience te jaaru école ñu def formation bi est-ce loolu moo tax ñu def formation bi vraiment te vraiment c' est la deuxième fois. parce que première fois bi defoon ko avec 3P ak performe tam def nañ ko centre secteur de Diamniadio te nag doyul ñu ngi ñaanti yenen formation di ñaan état pour mu yëgal si yeneen formation. Hmm, waaw waaw Birahim lay lancer un appel. parce que soxna si du ma bàyyi. c' est un cas que xëy suma teel te seetaan na ma journal am seetaan na ma intervention. waaw di ko ne grand merci. parce que yow idole nga quoi xam nga parce que nit ku nekk dafa am royukaay mhm. te man samay royukaay la bokk kii du ma bàyyi mhm, chaque matin Birahim mhm. chaque matin su ma xëyee non dama ko yàgg a topp depuis fa mu nekkoon télévision ba mu njëkkoon nekk ba fi mu nekk ni dama changé télévision ndax moom kon donc merci Birahim jàppal loolu di nuyu nag vraiment ñëpp euh, particulièrement sama équipe bi parce que man damay wax souvent ne man maa gën équipe man sama boy man maa gën équipe solution auto ay booyam mm. ñoo gën parce que booy yu vraiment yu dégg lañ mm-hmm. yu dégg mécanique yu mm-hmm. nangu mm-hmm. ñoo xam ne xoolal duñ taay duñ sonn parce que liggéey bi nag ñoom ñoo koy doxal. jaajëf voilà leen sant di leen gërëm waa Leral TV émission bi moom am na solo am na solo lool euh, ndax c'est la man c'est la première fois sax ma def ko la première fois ma def émission nanguwuma ko man gars yi dañuy bëgg a ñëw sama garage sax man leen <laughs> jéggal leen ma ko beneen quoi. mais bëggoon naa ñu souligner ay parties yu bëri yu bëri sax ci cadre apprentissage bi ak jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk si métier bi aussi tamit comme ku mel ni soxna madame njaay mii nii yombul yombul mais bëggoon naa si souligner lu bëri li may tàggatoo nag mooy di gërëm waa INAPAS ndax INAPAS mu ngi defar te mu ngi liggéey liggéey bu am solo waaw ñun léegi euh, daanaka suñuy jafe-jafe yu bëri INAPAS da ko wàññi. da nga daan soxla pièce di dem di wëri pièce man léegi damay toog ñu indil ma pièce daaw du ma buuse dama koy dugal dañoo am benn groupe boo xam ne da ngay dugal rek gaa yi envoyé la ko comprendre nga di sant di gërëm quoi di gërëm sama waa ji tamit kii moom sama seex la waaw moom lu mu am rek bokkoog man waaw des fois mu soxla pièce ñëw ma jox ko des fois ba ñëw si jël yëkkati pièce yóbbu ko waaw sama waay jaajëf di leen jërëjëf kon xam naa ne ñi ngi tàggoo tàggoo bu dul tàggoo rek euh, ba ba beneen yoon euh, incha allahu rabbi euh, télé leeral la woon moo ñëwoon tey seet si ku ñuy wax baabu Ndiaye mu bokk ci inaa INAPAS INAPAS nag bu ngeen ko déggee ñoom bu màggal jotee wala gàmmu jot dañuy mobiliser wu nekk ci tali bi di dépanner gars yi grand tiwit ci ñooñu lañ ñëwoon tey doon leen defal émission émission bi nag mi ngi aju mi ngi dépendre ci émission Mbaye Badiane ci jataayu transport ndax jataayu transport moom bàyyiwul kenn ndax tey ñii tey man su ma paanee mën na maa ñëw ci ñoom ñu dépanne ma keneen bu paanee mën naa ñëw ci ñoom ñu dépanne ko kon nag dañuy sant waa inaa paas di leen gërëm di gërëm it sunu kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk ci tele ba ñoo ma yombalal lii eh, jiital ci daam jee mi nga xam ne mooy borom kër gi Birahim Touré moom ngay wax ak madame Touré eh, di ak Pape Omar Fansu Waali maa ngi koy nuyu bu baax di ko jaalewaat itam eh, ma mama jaaga ñi ngi koy jaale adduna bi yëpp Sénégal yëpp di nuyu waa diaspora bi ndax waa diaspora bi dafa bokk dañoo bokk ci ñun parce que tey yéen waa li ngeen di soxla waa diaspora bi am nañ ci wàll